sur les sur les plateaux nañ nañu épuiser ce débat là parce que ce, ce débat là a déjà été tranché non, par les sens. qui sont les usa non, les usages sénégalais xam nga lu ñu wax ah dañoo fal un président yéen kay yéen au contraire lépp lu ngeen mës a critiquer c'est vous qui deviez raser les murs parce que le pays le, les populations vous ont désavoué et il n'y a pas cinquante jours mais pourquoi on va raser les non murs? je dis raser les murs sur les critiques ah. bu ngeen ne quand ils ont parlé de Pastef terroriste lañ Pastef amuñu projet. mais kan moo ne Pastef terroriste la dama lay waxuma la yow de façon <laughs> individuelle. la presse n'a jamais dit ça. non mais bien sûr mais je vais vous dire une chose population bi yeyuñu kenn parce que ñoo voteel ñoo xam ne suñu livre bii sunu programme mënoo cee fekk dañuy dindi BRT. fekkoo ci dañuy dindi terre est-ce que fekk nga ko suñu programme nga ni non non donc ñun critique ba bàyyi nañ ko parce que xam nañ ni c'est a été fait. mais mais xam nga li ngeen wax moo ëpp sax li ngeen évoqué. li ñu wax ci wax li ngeen wax rek li ngeen wax teg fi. soxlawul sax ñuy dem di xool di di yër seen programme dañuy ñëw benn par benn <laughs> doo ñëw sànni ñu de façon globale li ngeen wax teg fi rek dafa bari il faut ngeen changer yéen yéen presse bi waaw ah. sox soxlawul ñuy ñuy ñuy ñuy dem sax ci programme position si vous ne changez pas votre Ah. de paradigme bu ngeen ko changé wul. je pense que gis nga ni leen sénégalais yi bette. mais y yi bette non bien sûr que si. sénégalais yi ñu bettee victoire bu Bassirou Diomaye Faye. mais sénégalais yi ñu bettee bu ñu leen di wax sénégalais yi sont avec nous da ngeen ñu doon wax c'est des chimères da ngeen di rêver yéen vous êtes ay kii ngeen da ngeen a nekk mais débat yooyu yëpp. il faut qu'on les dépasse xam sénégalais qu'est-ce qu'ils attendent actuellement désormais et je pense que la presse a intérêt à très rapidement changer logiciel am mooy lan nit ñi dañoo nekk ci phase de développement. c'est le logiciel qui vous a porté hein. non non non non non non ñun kay média moom <laughs> ñun kay au contraire. c'est le logiciel qui vous a porté Amadou. beaucoup de non man bëgguma def le procès de la presse encore une fois. su ma la du sa habitude. le le li ma lay wax ngeen changer logiciel c'est dans l'intérêt du pays. les débats sur les plateaux bu dee façon façon boo xam ni ñun duñ def comme yeneen parti yi fi ñu daan jaarde toog di teesante à longueur de journée. na ngeen di def les gens dañ leen a jox mission de transformer le pays. ku nekk secteur am su ñëwee toog du fi nekk naan le président moo fi gën le premier ministre il est le plus beau et cetera les gens ils veulent. on verra qu'on pose des débats sérieux avec seeni experts ñu ngeen yaakaar ak ñun suñuy experts ñu waxtaanee le développement du pays. mais ñoo xam ni dañuy ñëw jënd ay plage médiatique ay DG ministre et cetera ut seen i médias seen i journaux yuy yuy dithyrambique yuy bind ci ñoom ils sont capables de transformer euh, le le le kii le plomb en en or et cetera yooyu jeex na. Hmm. c'est terminé. ah bon doo fi gis benn ministre ou DG qui va payer des médias pour ñu def son agiographie loolu jeex na comme le gouvernement une communication responsable une communication utile. une communication nécessaire lii képp la ñuy def lan moo utile lan moo responsable lan moo nécessaire mooy nag yéen changer leen ngeen ñëw débat sur les choses sérieuses non